bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di am mbégte nag eh, teew ci eh, kanamu Serigne Cheikh Bassirou Mbacke ibnu Serigne Abdoul Khader mi yor kàddu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke xalif général di Mourides ngir fas yéene jottali ñu ñaari ndigal yoo xamante ne mi ngi bàyyi ci Cheikh Mouhamadou Mountakha bi ci jëkk di bisub zikrullah bi ci topp di bisub xasida lépp di war a doon ci weer wii nga xamante ni ci la war a nekk muy weeru tabaski kon ñu euh, jox ko kàddu gi mu indil ñu ndigal yooyu nga xam ne mi ngi bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mourides bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokk jullit yëpp bokk taalibi murit yëpp ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi jëmmi Serigne Touba tey ci kaw suuf di ko ñaanal mu jàgg fi lool te ànd ak wér suñu borom doole kattanam ak wéram ba mot li mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne muy kàddu yu ma sëriñ bi yónni ci bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yi bokk taalibe yi nga xam ne ñoom la sañ a digal sañ leen tere ni ko suñu kilifa gu tedd gi daa waxe sëriñ Saliou Mbacké sëriñ bi wax ay kàddu yu jëme ci yéen loolu rek mooy ni mu baaxoo def ndax moom mi fi nekk sëriñ Tuubaa te mate ko sëkk ndax képp ku fi nekk Sëriñ Tuubaa rek da ko mate ndax loolu pàgguteefu Sëriñ Tuubaa la ci biirum njabootam da nga doy ñëpp waaye itam danay xam lu kenn xamut dana yëg lu kenn yëgut te ku ne xam ne ne Sëriñ Tuubaa ni mu woon léeg nattu natt yu diis daana tege ci jëmmam yëpp mu di ko dékku di ko muñ ngir yàlla ko xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kon moom mii fi nekkee Sëriñ Tuubaa noonee képp lay dox ak ñun mu delluwaat ci la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon muy ay kàddu yu gudd la waaye la ci ëpp solo mooy lam waxoon ne képp ku fi nekkee sëriñ bi daanañ la peese ak bindee fi ba nga wat leen boo ko wat boo leen watul nag ñu doole la ba nga wat leen mën na lépp loo xam ne aw yiw la bu bàyyi ko ci kaw dana wàcc sa jëmm nga yaanu ci ba diis mu door wàcc ci bindee fi waaye naka noonu itam lépp loo xam ne am nattu la buy wàcc tam noonu lay demee danga ci yenu ba su mu door wàcc ci bindee fi looloo waral nag dox gim dox suñ digg lépp ak xëcc gim ñee xëcce lépp moo tax lu ne rek lam la la tax mu digle ko mu koy xam te mu du ñuy fàttali it na Serigne Touba daa def ci njaarim daana waxtu ne le Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ne nelaw guddi ginnaaw bu ñibbisee tubaal lañ ko door xam ndaa waxtu ne mi mi kër këri di woote nañ daje kee sangam waxtu wu ne mu ne léeg-léeg bis bi mu nañ xëy jàngal ko nangam kamin léeg mu xëy nañ ko bindal kamin léeg-léeg mu ne nañ tekki ab néeg léeg nañ takk ab néeg ci génn guddi kon Cheikh Mouhamadou Mountakha doxee na bii muy dox ak taalibe Serigne Touba yi loola képp la ñuy fàttali kon nag Serigne bi xam ngeen ne xam na ne ni mu ko waxee nee na Serigne Touba léppam alxuraan la ndax moo doon pàggu defam lu mu mas ci defit ci ci la koy ci la koy moo tax xam ngeen ne bi tabaski jub santaane woon na ci adduna sépp na ñëpp jàng alxuraan dellu suñ borom tuub te sàkk sarax ba yaakaar naa adduna sépp déggoon nañ nam ko santaane bañ ko defee itam suñ borom def na nam baaxoo def mooy yaa xawmi istaxfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa aleykum midraaran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum fasaasa ci suba sa la suñ boon def ndox mi daal di wàcc daal taw mooy ndoxam jàmm kon yàlla ko muurloo tam barkeel bi Tabaski gi itam nag bi mu daal di ñoo xam ndigal Serigne Amdi moom Serigne Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall ci kaw suuf ñu koy ñaar moom itam mu yàgg topp ci ginnaaw ndigalu sëriñ bi di jëfe ay ndigal di bàyyi ay sëriñ bi joxaat ko ndigal na mu ko defoon daaw jéeg. waxoon wax ne dafa bëgg zikrullahi boo xam ne ñoom ñoo koy taxaw na mu ko ko sante wax na ko ñëpp dégg nañ ko daaw jéeget xam ngeen ne ba mu koy def booba adduna sépp jaaxaloon nañ xam nañ wopp ji fi amoon sëriñ ba muy jeexal moo yëkkati ci kàddoom ku ko mën a indiwaat ci télévision da nga ko gis la ma waxoon mooy li ma ci fas mooy jàngoro ji tàggoo bu faw xam ngeen ne boobu ba nëgë kenn kenn déggu ko ci àdduna kon Serigne Touba. suñ borom rus na ko lépp lu mu doog ci boromam rek boromam da ko ci fekk si lii nag moom moo xam lam ci fas wala lam ci fasa nit ñi waaye mu santaane ko wax ko ne ko daa bëgg mboolem ñi mu ko seqal ñëpp buñ àggee ci alxames ak jàmm li tàmbalee juróom-ñetti ci suba ba juróom wax waxtu ci guddi ñëpp ñëw fekk si ko nañ ko na ko defee woon ñu def ko te sellal ko nag niñ ko baaxoo defee dara adduna buñ ci dugg dara bañ ko rax loolu ñoom. xel dal na ci ndax ñoom dara bàyyiwu leen fi lu may jëfe ndigalu sëriñ bi te seen dund gépp wala seen adduna jëpp eh, fu ñu nekk xaar ndigalu suñ Tuubaa lañ def kon bu ndigal ak seen ñoom kenn du leen soññ wala nga leen di wax defe leen ko nii wóor na ñëpp ne ni ko sëriñ bëgg dañ ko def ñoo xam ne itam nag loolu xelaqaatu zikri bii Cheikh tax a santaane lu am cëslaay lu dëgër la ci lislaam rawat na ci tasawuf xam ngeen ne suñu yaakaar adduna ak alaaxira di seexul xadim ba mu wootee yoon wi ca Mbàkke Kajoor fa la tàmbalee xalaqaatu sikkiri mooy kuréeli sikkar yu mag yi ci ëpp moo ko daa jiite sax di ko dëbbee di ko ànd ak taalibe yi riir ca kaw a kaw loolu bokk na ci li yéege woon taalibe yi eh, raxas fóot fóot seeni xol ak seeni xel ba yóbbule ci seen borom noon loo ko daa ànd ak ñoom ci Mbàkke Bawol ba Daaru Salaam wér na ne noonu la ko daa àndil moom kon xëy na te suñ borom li mu ci wax ci alxuraan wala zikrullahi akbar zikrullahi mooy li gën a màgg lépp kon def ak jal bu moom moo gaaw ak àggaluñu lañ mën fuñ mënta àgg moo tax Sëriñ Tuubaa wax na ne amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana muridu yukthiru qad quddu zalika bila israari wala ubali bi zawil inkaari wa kullu man saalani fali jawaab qabla wala tujaadilu ahlal kitaab noonu la ko Serigne Touba waxee kon loolu xam ngeen ne mën nañoo defar suñ mbir yëpp waaye mën nañoo dàqal mboolem du ñu ragal la ca dolli ko dolli ko waat tam mooy bu alxames ji dellusiwaatee mu jox ndigal Serigne Youssou Diop bu daayira Hizbut Tarqiyyah ñoo ko dafa bëgg mu saytu te nos. mboolem kuréeli xasida yi ñi yëngu ci wàllu xasida ñëpp ñu àndandoo moom mu taxaw ko na ko taxaw taxawoon daaw ndax xam na ne moom itam lam cey séentu ci moom ak ñi ko àndal dana ko dana ko amee ni mu ko bëggee waaye nag ñi ko seqal ñëpp kenn génnu ci ak daayira yi nga xam ne daayira Serigne Touba la yëpp di yëngu ci yoon wi xam naa moom dana ko limaat du ma du ci bàyyi kenn waaye ñi mu ko àndaloon daaw ñëpp Serigne bi ngi so di ñu àndaat ko. nañ ko defee woon ñu defaat ko ne ku tudd mbirum xasida yi nag faaw munoo ñàkk a beral sëriñ am satum sëriñ Sohaybu xam naa suñ yuusu dan dafa dem jot li ko digal sëriñ bi waaye moom maamoo ko ci defal tawféex dundam gépp dara génnu ci xasida kon buñ ko tuddee rek day mel ni yóbbaale yi nga xam ne ñoom la ko ràndal bàyyiwuñ ci kenn waaye kon euh, sëñ yuusu kon noonu la ko sëñ bi sante na ko ànd ak bokkitaal bi yëpp ak daayira yëpp ñu ànd def ko ni ko sëriñ bëgge ndax xam ngeen ne xasida yi kat ñun mooy suñ lépp xasida yi sëriñ Tuubaa wax na ne xasaayid yi faaxat suyuxu tarbiya waxate xasaayid yi faaxat xasaayid al kiram lu ne wax na ko ci isa katafatu tëzza arshul baaxi wa sabbahat malaikatu baaxi wax na it ne lu ne wax na ko ci xasida yi li mën a doxee diggante jaam bi ak boroomam kon xasida yi nañ xam ne mooy mbootum Serigne Touba mooy mbootum yoon wi it kon ku ko sellal te defe ko ne ko sëriñ bi bëgge mboolem looy bëgg da nga ko ci da nga ko ci am mboolem looy ragal mën na ko daq kon buñ ci àggee na ko ñëpp gën a fonk nañ ko defe daaw sellal ko te xam ne luñ ci sàkku dara ko am te xam ne Serigne Touba fonko na xasida yi lool kon sëriñ bi mi ngi mi ngi koy yeesalaat ci loolu ñiy durus nañ ko daa defee ñi nga xam dañuy yëkkati xasida yi ndax lépp suñ bee ko suñ bee ko daa santaane ndax xam ngeen ne ñii di yëkkati xasida yi ko jàng Serigne Touba am na ci daaj yoo xam ne ci moom ko njëkk a déggee mu di ko yëkkati xam ngeen ne itam ci ku xam taarix ku ne xam nga ne li ci ëpp buñ masaan sëlmal gee sëriñ bu ne tëll daane inna allaha maana suñ masamba daa li yëkkati ànd ko bokkital bi am na ci xasida yoo xam ne Serigne Touba wax na daaji mi ngi ko déggee ci malaayika yi ñu di ko jàng moo ci boppam daan ko jàng kon xasida yi nañ xam ne suñ lépp ci la ne buñ ko sellalee rek te defe ko ni ko war a defee mboolem lu ñuy bëgg attan ko xam ngeen ne Serigne Touba fonkoon na xasida yi lool ndax am na ci ñoo xam ne sax daanañ ko koy ñoo xam ne ay bokk lañ di ko yëkkati yëkk daajum kenn bokk na ci Serigne Mor Kuna Mbacke na ci Serigne Afy Bousso waaye bokkone ci sëñ Bouna Fall mi nga xam ne sëñ bi jëlee woon gànnaar indi ko fii ngir muy jàng xasida yi ba demee ba yàlla do yàlla suñu boom def mu bàyyi ko fi sax sëriñ bi dafay yëkkati am mbubbum barkeelam ne nañ ko ko sànge daane rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko jox ndigal ne ko na ko jox mbubbum moom ngir sargale ko ko kon xam ngeen xasida yi lu ne attan ko kon loolu bokk na ci daraje xasida bi mu fi bàyyi ko itam mu jëli sëñ Mahmoud Fall mu ànd moom ci njàng mi loolu xam ngeen ko kon xaside yi waxtu na dañ ko war di jàng guddeeg bëccëg kon nag Cheikh Mahmoud Mountakha ngir bëgg a soññi nit ñi ñu yokk seen yitte ndax xam nañ ne dañoo war a xam ne kat dañuy indi ci sëñ Tuubaa du àdduna bëgg defaru àdduna ak bëgg defarug alaaxira moo ñu fenn waa àdduna yi kese andiwuñu kon nag moom mi ñuy womat nañ jéem a fexe ba moom ni mu ko daa waxee. boobu ay kilifaam fi ne nañu woyofal suñum nos ba bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñuy xëcc mu yomb kon ñun taalib yi itam nañ góorgóorlu te jéem a roy ci moom mënuñu àgg ci moom nag waaye nañ jéem a xool ci aw doxinam xool aw doxinam ci ni ni mu dëgmale borom xool ay dox aw doxinam ci ni muy liggéey di xool aw doxinam ci ni mu ay kilifaam xool ay aw doxinam itam ci ñim yéene ñëpp jàmm. Cheikh Mouhamadou Mountakha képp ku fa ñëw ku ne moo xam aajo adduna nga wal wala aajo alaxira bu agsee yàlla suñu borom dana la ko saafaral la Cheikh Mouhamadou Fadi daa wax wax ne yaara ñu fi bàyyi xaj ak xajoo lu fi waay indaale ci tilim lu ne ñu ñu la ko mu set waaye lu fi indaale ci ay aajo ko ne ñu fajal la ko loola maa ngi koy roy ca waajuram bu tedd woowee di Cheikh Mouhamadou Fadi kon nag ñu ngi koy ñaana mu yàgg fi te ànd ak ñu te ñu waa waat gën a góorgóorluwaat te xam ne suñ dimbal rek la ñu bëggal xam ne it bëgg ñoo dimbale rek a tax ndax li mu wax ne bëgg ñëpp defaru rek tax ak lim yéene bopp mu yéene ko jëpp loolu kooku xam ku ne yaa ngi koy dund ak kon nañ gën a góorgóorlu te xam ne ndigal yow lu mu bari bari rek suñuy defaroo ndax koo xam ne fa nga toog xaar ndigal la fa la bàyyi ndigal moo la fa bàyyi kon wóoroo ndigal yi lu mu jege jege lu ci agsi da ngaa war gëm ne ci lii ci la sa sa aajo yi Serigne Touba mas naa wax ak Cheikh Ibrahima Fati ci mujj gi boo fekk dafa woote waaye woote yi jege ba caag mu daan ne ab liggéey laati de ndax boo xam naa yërëm na nit ñi ci fitne yu métti waaye boo xam nañ da leen bëgg dem ne kon la ko jëwriñam ju du yooyu daa wax ak Cheikh Ibrahima Fati ne ko saa su ko suñu masaan wàcce mu ne ko yaa ma njëkk a xëy ci toolu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te ba na wàcc ko kon li fi wàcc ko du ma wàcc kon ñooñu itam Cheikh Mouhamadou Mountakha ku xam fi mu toll ak joomi joomi jaamu yàlla ji nga xam ne kon gis ne am na ko booy julli ji ajjuma gis nga li muy jànkonteel li muy daj waaye lépp rek xam ne looloo ko fi bàyyi kon ñu ne tam war nañoo jéem a ñëpp nag ñun ñëpp moo ñu mën ci hectare bi mën ñu ci jitte mën ñu ci taxawaay kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu àgg ci jàmm te defe ko ni mu ko bëggee di ñaan tam yàlla nañu suñu borom dimbale defal ñu ci tawfeex defal ñu ci defarug àdduna ak àllaaxira asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf loolu mooy kàddu yu soññe yi nga xamante ni bàyyeekoo na ci Serigne Cheikh Bassirou Mbacke ibnu Serigne Abdoul Khadir muy fàttali ñaari ndigal yu ñor lool Cheikh Mouhamadou Mountakha bi ci jëkk di bisu zikrullah bi nga xam ne alxames lay doon euh, juróom-benni fan ci weeru join dëppoo itam ci li nga xamante ni moom lañ nekk ci weeru tabaski fukki fan ak juróom-ñaar alxames ji ci topp. war a dëppook moom itam fukki fan ak ñett war doon ñaar fukki fan ak ñeent moom itam ñaar fukki fan ak ñeent moom itam mooy doon bis bi nga xamante ni mooy bisub xaside yi di ñaan suñu borom yegg liñ ci ak jàmm ñu def ko ni ko sëriñ bi digle sàkku ci ngërëmam te am ko te di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéey sëriñ Tuubaa matale ko te ñu ànd ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.